yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu ñeent fukkeelu njàngale mi kilifteefu yéesu ci kaw rab yi ak jinne yi nañu bamtu nettali yi weesu benn lan la yàlla digoon Ibrahima dig ko Isaaxa dig ko Yusufa dig ko Daawuda digoon na leen ne dina yónni ci àddina ab musalkat ñaar lu tax yeesu mën a yilif ngelaw li ak duus yi mënoon na yilif ngelaw li ak duus yi ndaxte yeesu du nit yem ca yàlla la itam ñett lu tax taalibe yi tiit ci gaal gi donte yéesu mu ngi àndoon ak ñoom ndaxte fàtte woon nañu ne yéesu moo yilif ngelaw li ak dossier mbind mu sell mi nee na ci Mark saar juróom aaya ñaar ak aaya ñett aaya juróom benn ba aaya fukk ak bi yeesu génnee gaal gi nit ku rab jàpp jóge ca sëg daldi ñëw kar ko kooku nag ca sëg la dëkk te kenn mënu ko yeew du ak càlla sax bi mu gisee yéesu fu sore nag mu daldi daw si sukk fa kanamam di xàccu nan yow yéesu doomu yàlla aji kawe ji loo may fexeel ci turu yàlla bu ma mbugal ndaxte neewoon na ko yow rab wu bon wi génnal ci nit ki noonu yéesu laaj ko noo tudd mu tontu ko coggol laa tudd ndaxte ñu bare lañu muy ñaan yéesu lool ngir mu bañ leen dàq ca réew ma fekk amoon na fa ca tund wa gétt mbaam xuux yu bare yuy for rab ya ñaan yeesu jox ñu ndigal ñu dugg mbaam xuux ya mu may leen ko noonu rab ya génn nit ka dugg mbaam xuux ya ñu daldi bartalu daanu ci dex ga lab fa mbaam xuux ya nag matal nañu ñaari junni bu leen fàtte ràññee melukaani yàlla yi ci nettali bi kilifteefu yeesu ci kaw rab yi ak jinne yi nettali bi mu ngi aju ci kilifteefu yéesu ci kaw rab yi ak jinne yi yéesu amoon na kàttanu faj jarag yi ak a def ay kéemaan yu bare yéesu amoon na itam kilifteef ci kaw rab yi ak jinne yi indil nañu ko ñu bare ñu rab jàpp dàq na rab yi ak genn kàddu dong benn bés yéesu ak taalibeem yi jàllu dexu galile jëm diiwaanu serasa bi yeesu wàccee ci gaal gi ab nit daw jëm si ci moom nit ki ab raba jàppoon mu ngi dëkkoon ca sëg kenn mënu ko woon téye yeew nañu ko ay yooni yoon waaye mu tekkeeku rëcc guddeeg bëccëg mu ngi doon wëreelu ca sëg ya muy yuuxu tey fab ay xeer yu ñaw di dagg yaramam waa ji rab daw ci yeesu ñëw sukk ci kanamam mu yuuxu ne yéesu doomu yàlla ji loo may fexeel ñaan naa la bu ma mbugal noonu yéesu laaj ko noo tudd mu tontu ko coggal laa tudd ndaxte dañoo bare ñu ñaan yeesu mu bañ leen dàq fu sore ko mu may ci ay mbaam xuux yu fa jege woon noonu yéesu dàq leen ñu dem ci mbaam xuux yi lu tolloog ñaari junniy mbaam xuux jóge ci kaw tund wi tàbbi ci dex gi lab sàmm yi daw dugg seen dëkk ngir nettali li xew nit ñi ñëw ngir xool si ñu fekk rab jàppoon mu solu toog ci wetu yéesu bi ñu ko gisee mu wér te dégg li xew ñu ragal nit ñi ne yeesu mu sore seen réew bi yeesu dugaatee ci gaal gi ngir dellu nit ki mu faj ñaan ko ngir ànd ak moom yéesu ne ko mu dellu ci ay mbokkam te nettali leen li ko borom bi defal waa ji dem di wër ci réew mi ngir nettali li yeesu def ñépp daldi waaru beneen yoon ay nit indi nañu ci yeesu keneen kurab rab jàpp mënul woon a gis mënul woon a wax bi yeesu dàqee rab wi waa ji di wax di gis nit ñi waaru ñu ne xanaa doomu daawuda ji la yàlla digge waaye sëriñ yi ne déedéet ci doole seytaane lay dàqee rab yi yéesu xam seen xalaat ne leen réew mu tas dina daanu bu seytaane dàqee seytaane boppam lay tas kon naka la nguuram di taxawe waaye bu fekkee ne ci xelum yàlla lay dàqee rab kon nguuru yàlla agsi na ba ci yéen yéesu dàq na ay rab yoon yu baree bare fii la nettali bi yem am na ay laaj benn lan moo jotoon nit ka dëkkoon ca sëg ya dafa amoon ay rab ñaar lan la ki rab jàppoon yuuxu wax ko yéesu yuuxu na ne yéesu doomu yàlla ji loo may fexeel ñan naa la bu ma mbugal ñett lu tax mu ne coggal la tudd ndaxte rab yu bare nekkoon ci waa ji ñeent lu xew bi rab yi duggee mbaam xuux yi mbaam xuux yi tëb nañu ci tund wi daanu ci dex gi lab juróom lu ngeen xalaat ne moo tax rab yi sànq mbaam xuux yi seytaane bëggul nit boroom mbaam yi ñàkk nañu foofu alal ju bare juróom benn bi yeesu fajee waa ji lan la ko wax dafa ko wax mu dellu réewam te nettali li ko borom bi defal juróom-ñaar lu tax sëriñ xalaat ne yeesu ci kàttanu seytaane lay dàqe rab yi xamuñu woon fan la kàttanu yeesu jóge juróom-ñett fan la rab yu bon yi jóge ak kan moo leen jiite ñooy malaaka yi àndoon ak seytaane seytaane di dëddu yàlla seytaane mooy seen njiit juróom-ñeent lan la ñuy wut bëgg nañu moom nit ñi jëfandikoo leen coobare seytaane ñaare dañuy feeñu mel ni ñu baax ngir nax nit ñi waaye lu mu yàgg-yàgg ci lu bon lañu jëm fukk lu tax nit ki rab jàppoon rab ci yeesu nañu kan moo te nañu ne yéesu moo leen ëpp doole fukk ak benn yéesu ak seytaane ku ëpp doole yeesu moo ëpp doole yan melokaani yàlla lañu gis ci nettali bi ak naka lañu ci feeñe yàlla mooy boroom doole yéesu moo ëpp doole rab yi yéesu dàq na rab yi jàppoon ay nit gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yéesu faj na ñépp ñu ñëwoon ci moom te rab jàpp leen te itam bàyyi na rab yi dugg ci mbaam xuux yi yàlla xam na lépp yéesu xamoon na lan la sëriñ yi doon xalaat mu ne leen réew bu tas daanu mënuñu woon teg dara ci loolu beneen yoon dinañu leen won ci nettali ne yàlla bëggul nit ku yëg boppam